yéenekaay lu nekk journal bi nee nañu opposition bi génne nañu ko ci réew mi mu yeewi askan wi di M2D di di front de résistance nationale di FDRS ba ci li ñu génne bu yàggul ñu naan ko fit front pour l'inclusivité et la transparence des élections waaye ak yooyu yëpp l'observateur nee nañu taxul opposition bi ci réew mi gisu yoonam Mamadou Sy Albert ne ñu ci biir yéenekaay bi loolee dafa yàgg du tey ndax ba tey opposition bi xamul ban tànk lay taxawee sa kàngam yi ci opposition bi kenn ku nekk ci ñoom da ngay bëgg foo toll di wane sa bopp ñetteel bi di pouvoir bi ñu ko séqal mayu leen temps ngir ñu mën a organiser ñuy développer seen stratégie yu yees ministre de l'intérieur bu bees bi di maître Sidiki Kaba Vox Populi nee nañu démb ci assemblée nationale ba ñu koy nattal bitseem député yi fara ci opposition bi mayuñu ko dara dund nañu fa face à bu tàng jër ni Vox Populi tënkee la xewoon bi joor nañu ministre intérieur ay xeet yu moom it leen moom it ak i kàddu député yu ci mel ne Ayib nee nañu Sidiki Kaba munoo organiser élection présidentielle yi ndax dafa am foofar ci APR nga bokk te responsable nga fa ba tax bu dee yow ak yow rek ay élection yu jag du am ci réew mi Walf Quotidien bind ne député yi fare ci opposition bi nee nañu ministre intérieur Sidiki Kaba bëgguñu laa gis ci organisation élection présidentielle 2024 ndax doo ca demek sa aqulaayu taala ñi waxul ak seen aqulaayu taala tribune nee nañu sax ba mu ci toll amul woon loolu te xanaa lu ne mënees nañu koo bëgg gëmloo ba mu des Amadou Ba moo gën a populaire Macky Sall nañu muy waa Benno Bokk Yaakaar di waa Pastef yi taxaw ne ku ci nekk ci ñoom ñetti millions yi parrainage nga bëgg ñoom ñëpp kenn ci ñoom nekku ci ci yoon flagrant délit ci la nekk ndax nombre de parrainage yi ñu war a jox conseil constitutionnel warute weesu ci fichier électoral bi kon bu waa Benno Bokk Yaakaar ne am nañu lu duma sa doom doomi Afrique yi daje woon démb ca jam ñaajo ngir doon waxtaane jàmm aku kaarange ci Afrique mu di neuvième forum de la paix et sécurité en Afrique journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ci dellu si muy journal bés bi le jour di journal L'Info la Sénégal le mandat le quotidien libération Sud Quotidien enquête ba ci réew mi quotidien mi xëy dikkaat ak ñun ci lanne ci kàddu yu fa président Macky Sall yëkkati démb ba muy ubbi ndajam jëm ci ñaaw lu coup joxe na liste yi mu jàpp ne ci la ñu war a mën a sukkandiku ngir suqale Afrique bés bi le jour ne ko romb na liste ab arsenal de solution la Macky Sall ak ñawoon ca ndaje ma joxe démb ngir jàmm ak ko kaaraange ci Afrique ci xët mu njëkku libération mu fa yox moom président Macky Sall ne liberté gu àndut ak responsabilité musiba lay jur ci société bi kàddoom yooyee journal l'info gis na ci aw doj wu rëy wu mu sànni opposition bi opposant bi di Ousmane Sonko ngi ñuy wax ne annulé gi Cour suprême annulé bi juge bu tribunal bu Ziguinchor bi defoon juge bi